waaw ma neexee naan ci cinq waaw yàlla yàlla na la bàyyi balay semaine bi alors Clédor tey euh, loo indi fooy génne. ah man kay tey moom foog ngeen orienté ma parce que euh, <laughs> actualité bi dafa mel ni bëriwul évolution. Euh, mais ah, ah. plutôt ay développement lay am. waaw ay développement. ay développement rek lay am. léegi donc ay jalons yu ñuy posé. Mhm. rien de surprenant quoi. waaw rien de surprenant. parce que on voit les choses venir. donc. apparemment mm-hmm. euh, benn Bokk Yaakaar PDS taxaw dañu lëkkaloo pour remettre en cause le processus électoral parce que ñun ñu ngi observer li xew assemblée nationale mm-hmm. assemblée nationale li fa xew mooy mise sur pied d'une commission d'enquête am na document bu mu la yónnee xaw ma ndax gis nga ko mu déet. waaw gis naa ko tardivement. mooy mooy mooy rapport. parce que fekk na ma tëdd parce que boo xoolee exposé des motifs yi. Mhm. dañ ci viser le fait que ñu yàq candidature Karim Wade ak yeneeni candidats. ba noppi mu am ay soupçons graves de corruption de conflit d'intérêt donc loolu la ñuy def xam nga loolu. Mhm. ñëppay d'accord bu bu corruption amee. ak mhm. conflit d'intérêt amee. ba ñu tudd ci Amadou Ba nommément bind ci turam ak yeneen responsable Benno Bokk Yaakaar loolu lañ lañu la jiital ci texte bi mm-hmm. Amadou Ba ak yeneen responsable Benno Bokk Yaakaar waaw léegi ñu ngi ñu ngi visé Amadou Ba ak ay responsable Benno Bokk Yaakaar mais ay député Benno Bokk Yaakaar ñooy voté résolution bi sa c'est un peu contradictoire léegi nag bu ñu demee ba ci Euh, conclusion yi euh, motif motif principal bi mhm. mooy commission d'enquête bi dafay enquête tout le processus électoral te processus électoral dafa commencé ci bind mi ba fi ñu toll nii ba ci élection yi te donte ay député jógoon nañu ni nañu nañu ut cadrage mhm. ci fan la ñuy dooree ak fan la ñuy parce que processus électoral dafa yaatu. Hmm. donc comme parrainage yi moo amoon conflit est-ce que lu ñu dooree ci période parrainage bi surtout que ci période boobu la ñu soupçonné ay corruption ki conflit d'intérêt loolu dañ ko bind ci kayit bi rek waaye tenir ci compte dañu bind de am na ñoo xam ne sàkk woon nañu loolu waaye commission bi lii lay visé hmm. léegi nag. Euh, dégg naa benn député pur ku jigéen xaw ma turam jàpp ma turam. Mhm. la dame la jeune fille la ku pertinente. vraiment li mu wax daal euh, daf mel ni waxal na Sénégalais yu bëri. Mhm. kooku moom seetaan sama xol démb. voilà euh, moo moo tax nag war waroon naa xam turam. <laughs> mais dafa waxal dafa waxal Sénégalais yu bëri. Mhm. parce que entre li ñu leen proposé ak fi ñu bëgg a jëm. sa vise. le processus électoral te comme ni mu ko waxee kenn mënu fi taafantoo article cinquante de la constitution parce que situation bi koy waral amu fi donc euh, léegi manœuvre la pour jeter le discrédit sur le processus électoral mhm. te booy xool li xew conseil constitutionnel ci contrôle parrainage dafa nuroog sabotage lool am na ay candidat yoo xam ni examiner wuñu sax seen clé parce que nee nañu euh, c'est pas conforme xaw ma lan mënuñu ko tijji am ñoo xam ne contrôlé wuñu leen sax. inexploitable. voilà inexploitable waa clé inexploitable dañ leen renvoyé si comme vite fait. Mm. waaw ils sont neuf ñoo xam ni kenn saytuwul seen biir donc ñi ñu saytu seen biir bëri na ci ñu saboté seen ay données loolu ñu ñu ngi ciy wax di ci waxaat donc loolu. bu ñu demee bay rocci ay pièces ci ay candidats loolu vraiment dafay jeter le discrédit ci processus bi rawatina Sénat bi war a arbitrer gis ngeen ni ko mag Sall def def fa ñu ko neexam y compris un membre de la l'APR kon tey jii bu fekkee ni un candidat jóg na yëkkati tuuma bu rëy teg ko ci ñaari membre conseil constitutionnel bu noppi joxoñ ci baaraamu tuuma ay candidats parce que dafa ni des candidats la ñuy def ci ci document bi des candidats donc euh, yemul ci euh, Amadou Ba kese mm-hmm. parce que visé wuñu Amadou Ba kese donc ñoom même ci indice yi ñu war a joxe sax mm-hmm. ñoom dañ ko buggoon a téye ba ñu ba résolution bi jàll ba pare ñu teg ko ci kanamu commission bi maanaam euh, les onze députés euh, yu war a statuer kon loolu vraiment yàkkamti nañ ko lool lool lool lool xool fan la ñu teg tuuma yi fan la ñu teg jëm processus électoral bi c'est vrai que processus électoral bi bëri na fu ñu ko mën a jëmee mm-hmm. mais comme à chaque fois mm-hmm. euh, processus électoral bi da daan sooxe da daan am injustice da daan am manœuvre ak manipulation mhm. yoo xam ni parfois justice ak conseil constitutionnel mii ñoo ko daan def mais daawul tere ñu dem ci ay élections mhm. législatives yi passé gis ngeen comportement au conseil constitutionnel yoo mhm. xam ni teg ko ci benn yoon invalider liste titulaire bu noppi ni remplaçant yi nañu dem titulaire yi kay Euh, remplaçant yi kay titulaire yi la ñuy remplacer en cas. Mhm. mais bu titulaire yi demul kan kan la ñuy remplacer. <laughs> normalement dañu waroon annuler toute la liste. Mhm. suppléant ak titulaire. mais loolu bu ñu ko defoon day am crise politique grave mais ñoom rusuñu woon def dans la flagrance. Mhm. c'est vrai que au sein de Yewwi am na leen ci jàppale. ci saboter euh, dossier euh, de candidature yi. ci euh, respect wu parité yeeg yu ni mel. Mm-hmm. c'était fait à dessein loolu après lañ ko xam on a même des noms on on on les connaît tous. Mm. donc ah mais donc euh, parce que waa taxawu ñoo yoroon liste nii ah ñoo ñoo yoroon investiture. Khalifa da lañ à le siège lañ doon déposé les dossiers de candidature man mii sama dossier Mac Dambodj foofu lañ ko déposer. ñu ñu def ñu li ñuy def. donc euh, conseil constitutionnel donc ci législative mais li mu def loolu kenn war ko fàttali amul lu mu ko mën a cislaayalee ci wàllu yoon hmm. amul lu mu ko mën a motiver ci wàllu yoon te listu Benno Bokk Yaakaar dafa amoon problème ñu waroon ko euh, euh, éliminer au même titre que listu Yewwi Askan ñu def deux poids deux mesures mais loolu yëpp terewul woon ñu dem ci ay élections législatives ñi nga xam ni retenir uñu seen candidature injustement mhm. en violation flagrante de leur droits comme ni ñu ko defee Karim Wade c'est vrai que c'est c'est c'est des législatives et non des présidentielles mhm. mais l'attitude est la même mais waa Yewwi ñoom Ousmane Sonko ñoom Maimouna Bousso ñoom Malick Gakou ñoom ay Aïda Mbodj ñi nekkoon ci liste nationale bi yëpp mënuma leen lim mais dañoo battre campagne ba gagné ils ont presque gagné parce que quatre-vingt-deux députés opposition musu koo am Sénégal musu koo am Sénégal cinquante députés sax opposition musu koo jege Sénégal opposition réunie laa wax donc euh, liste intercoalition bi am quatre-vingt-deux députés loolu je